ci bisu tey bi nga xam ni mooy bisu 23 juin di bis bu màgg ci taarix Sénégal eh, di fàttali bañ bi nga xam ni ba ñu reyee fële ci amerique kooku di George Floyd eh, mouvement bi nga xam ni ci àdduna bi yépp ñu koy wax Black Lives Matter te mooy Euh, fexé ba lepp lo xam fay doon nekk luy nakara ni ñu ñul ni ñu mën ko delloo ci xam ni ñok ñepp ci yam euh, loolu nak ci fatali gi nga xam ni ñun ci fi ci ndar mom lañ am ci suñu euh, maam yi nga xam ni ñu ci gëna a bari ki ñuy wax fédéral daf leen galon ci fatali gi nga xam ni tamit ay lu doon ay téeméeri téeméeri village yoo xam ne lakk na ko fii ci fii ci Ndar ak li ko wër ak Sénégal gi yëpp sax la ñuy wax euh, boole itam fàttaliku tamit euh, travaux force yi nga xam ni moom la doon imposé sunu maam yi topp ci tam lu mel ni sunu maam yi jigéen ñi nga xam ni dañ leen doon forcé ci li ñu daan tuddee mariage euh, à la mode du pays mu nekkoon lu naqari yoo xam ne métis yu bari ci ñu juddoo euh, suñu xalaate yooyu yëpp ak toroxol ak métital yi nga xam ni moom feder moo la doon def tey ci bisu tey bi ñun amuñu dara lu dul di def laaj kii di suñu meeru dëkk moom ak conseil municipal am ñu ni nañu dajale conseil municipal boobu def procédure yi nga xam ne bu ñu ko defee dinañu mën a def soit benn concertation citoyenne bu yaatu lu mel ni référendum wala lu ñu mel pour que kii di fédère turam ñu dindi ko ci pont bi nga xam ni euh, moom lañ ko tudde statut bi nga xam ne nag dindi woon nañ ko ba wala boog wàcce woon nañ ko ba yóbbu ko fële ci IFAN ñu ngi ñaan pour conseil municipal bi bàyyi ko foofu bu ko defee euh, mu toog IFAN ku fa dem ci sunu doom yi ñu mën laa wax euh, ñaawte fi mu doon def loolu dana ci doy sëkk ci ci wàllu woowu ci wàllu musée euh, li nga xam tam ñooñ ci lañ ci toftal mooy bari na fii ci biir Ndar ay mbedd ak ay place yoo xam ne ñu ngi ko tuddee ay ñoo xam ni suñ ko toppee ca taarix amuñu woon benn njariñ ci dëkk bi ñooñu ñëpp ñu ngi ñaan tur yoyu ñu sét ni nit ñu baax ñi nga xam ñoo nekk ndar te duñ jeex ñu tudde lan yoyu tur te loolu conseil municipal mëna ko def kon loolu ñu ngi koy ñaan monsieur le maire mu taxaw ci ñi ngi tam di profito comme ñi ngi wax affaireu feder ku na xam ne France mu ngi nekk dëkk bi ñu xlil te lil moomu dëkk la bu nga xam jàmm dong la ñu séq mook ndar te am nañu échange yu bare bare ci wàllu partenariat partenariat boobu ñu ngi ñaan moom loolu continuer ndax loolu mook li ñuy wax euh, deful lenn lenn ndax loolu lu baax la loo xam ni euh, ñaari dëkk bi ñu ngi si gis seen bopp ndaxte respecté respectante am na ci euh, ku nekk tamit say valeur ñu koy respecté kon ci wàll woowu ñu ngi ñaan loolu moom sax incha allah kon li bii déclaration na maa ngi koy def turu ci turu eh, eh, parti réew mi bi nga xam ni moom laay bokk nekk coordonnateur bi mais itam eh, nekk leen ku leen toggal fee ci conseil départemental bu Saint-Louis maa leen sant di leen gërëm.